d'abord du benn d'abord du benn ma ma yokk si benn rek pour pour finir. xam nga en fait am na loo xamante ne une philosophie il faut aller jusqu'au bout de. mais dinaa tontu boo nee ma ko def ci xar. <laughs> waaw doo ko def ci montre doo ko def ci dal doo ko def ci kër. waaw doo ko def ci c'est un principe de vie. bon d'accord. mu nekk nga cohérent par rapport ak li ngay woote. waaw d'accord léegi est-ce que mën tontu. mais man beneen question rek laay laaj. mooy xar bi rek xar xaru tabaski dañ ko war a def ni soble si ak pomme de il faut réguler le prix. comment ça par rapport ak poids bi. mais oui par rapport ak poids. mais béjjën yi day diis des fois. mais oui non non mais béjjën yi da koy dindi fàq des fois. yëriñ am na ñuy sox am na ñuy soxal ak biir bi. ak biir bi ak biir ak karaw gi. am na ñuy soxal astafurlah am na ñuy soxal pour man pour man. c'est à ce niveau que l'État doit faire son travail. la direction de l'élevage et cetera et cetera pour man. loolu kay ARM la. Ah? autorité de régulation des marchés. Ah, ah, mais mais mais on va on va. ARM pour man comment faire aussi c'est possible de de pour man loolu la ñu war a def man am na man am na sama koñ. billahi wallahi wa taalahi seen jabar dañ leen di wax ni boo leen indiwul xar bu toll nangam doo leen dugg si biir dëgg la dëgg la am na ñoo xamante ne 6 heures du la ñuy indi xar te mbàjju lañ koy muur. billahi mais dëgg la mais dëgg la non non xar ma ma doon wax waaw booy na ngay taxaw xaru ñoom Mbaye Ndiaye ñëwagul ba léegi ñëwagul di ko koc di ko koc loolu loolu ngay jàngal xale yi si seen mais indi pa xam nga xam nga si yokk lu am solo hmm. lu am solo si affaire xar yi hmm. tey jii hmm. xar bu bu bu jar six cent mille ka ka